assalamualaikum bokk senegal tv ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ku nekk turam ak santam di leen wax ne amati nañ di wax ne am nañ fi tey ay gan yu am am solo ñuy waa school musulman waaye bala loolu damay bàyyi sama ñaari chroniqueuse yi ñu nuyu ñu dog leen dugal soxna mariam assalaamaaleykum waaleykum salaam Souleymane asalaamaaleykum mbokk ñu bokk plateau bi Sénégal TV ci suñu thème islam et jeunesse waaw tey am nañu contenté di partager plateau ak waa sport musulman. Mm-hmm. Ah, jërëjëf soxna Mariam soxna Fassane nuyu naa la. maaleykum salaam Souleymane. Mhm. ñu ngi nuyu mbokku internet yi di nuyu ñëpp ñuy seetaan. Mhm. di nuyu ñi nga xamante ni tey suñuy gan nañu. ñu ngi mhm. leen di dalal. ñuy waaye school musulman euh, balaa dara soxna Fassal soxna Mariam comme ni ngeen ko waxee gan yi fi am na ñuy bàyyi ñu nuyoo présenté wu ñu doog a xuus si waxtaan bi seen nuyu naa la sëriñ Saliou. Pak mhm. mhm. mhm. ke ñu lay fay Seyna Sulayman. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum salaam. Ñu leen di nuyu di leen baax di leen baax. Man ma ngi tuddé Salim Diaw. Nekk responsable ci escoute Egine Musulman du Sénégal notamment le groupe local Chomba Doudou. Yo nekké wakam. Man nak ma adjoint chef de groupe. Wa ma andak ak sama xarit bi sortu ke Mustafa. Ak ki ni di jaar sey xamna dama leen di baye kaddu rek ku nekk jëfé sa tour ak sa Seyna Mustafa ñu nuyu su lu gaaw ñu ko soxtaan ni asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. Euh, maa ngi nuyu ñu ma fekk fii soxna yi. Mhm. di leen remercier si invitation bi. Mhm. Euh, man maa ngi tudd di responsable scout équipe musulmane du Sénégal en même temps nekk commissaire régional. si mhm. scout bi. Euh, en même temps di fonctionner si groupe local bi. je suis chargé de formation des jeunes routes ñi nga xam ñooy takk fulaar yu mel nii. jërëjëf sëñ Moussa Faba soxna Diarra. baal ñu yëkkati kàddu gi tuuti. waa tur bi jaar nekk élément si scout équipe musulman du Sénégal. ayiwa jërëjëf mbokk yi seetaan comme ni leen ko waxee ñu ngi ko dawal tey waa scout musulman soxna Fassal soxna Mariam ñu fas yéen a waxtaanee lu am solo mooy seen mouvement maanaam lu ko waral ak lu leen taxajul. balaa dara damay bàyyi soxna Fassal defe naa xam nga ne am na ay laaj yu bëri bëri lu ñu leen war a laaj dañuy bàyyi soxna Fassal mu laaj leen laaj bu njëkk bi soxna Fassal. Mhm. mooy ana lan mooy seen objectif. Mhm. kan la bàyyi tontu Saliou wala Tafa. waaw xanaa loolu noonu liy jëm si cadre objectif. Mhm. Scout musulman du Sénégal. est-ce que sax gën waaw mooy éducation. éducation boo xam ne dañ ko teg si cadre diini muy diine l'islam mhm. boo fekkente ne Sénégal boo déggee scout rek ñu bari seen xel day def si yeneen mouvement yi mhm. maanaam scout chrétien wala éclaireur mhm. waaye ñenn ñi dañ desee xam ne scout musulman existe na te mu ngi bëgg yàgg ëpp na ñaar fukki at ñun ñiy toog di si ne rek man mii def naa si quinze ans waaw

jàngal leen comportement diggante mag ak ndaw na la ñuy mhm. parce que ay xale lañu yor mhm. xale yoo xamante ne à partir de sept ans la mhm. sept ans ba quarante cinq ans mooy mouvement jeunesse sept ans ba quarante cinq ans mooy âge bi donc ñi nekk sept ans ba treize ans waaw foofu noonu dama siy jéem a leeral maanaam scoutisme musulman dañ ko xaajee si ñetti pàcc pàcc boo xamante ne dafa commencé septembre treize ans ñoom la ñuy wax caati mm-hmm. mooy caati boo demee si ña dana ne les louveteaux mm-hmm. léegi à partir de quatorze ans mm-hmm. jàpp dix-huit ans ñoom ñu ne la branche verte la branche verte maanaam ñoo xaw a féetam ak ñoo topp si caati ñeneen ñi nag jël dix-huit ans ba moo xam mën nañu wax trente ans wala quarante ans foofu ne c'est la branche rouge mandarga branche rouge nag mooy seen fulaar yi mm-hmm. moom bii ma takk mm-hmm. mandarga caati mm-hmm. mooy fulaar bii nii vert zone bi la branche verte nag seen mandarga mooy fulaar bii nii soxna jaara takk ku si nekk dafa am lu ñu la mandargale waaye tamit ku si nekk dafa am sa éducation fu ñu koy cadré lii si nekk si wàllu xale yi xale yi nga xam ne de sept ans ba treize ans xam nañ ñëpp xam nañ ne xale foo la xam waaye nag duñ insister de trop si fo bi mm-hmm. dafa am cadre boo xam ne dañuy fa waaye lii si ëpp dañ koy teg si cadre éducation islamique xale mm-hmm. yooyu noonu mm-hmm. danañ jékki saa di fo wax ñoom di def ay kermesse moo xam waaye nag fa la ñuy profitoowe jàngal leen lañ leen war a jàngal waaw léegi nag buñ jëlee ñi nga xam ne ñooy takk fulaar yële yu bert yee kon soxna jaara ni mu ko takkee mooy ñi nga xam ne c'est à partir de quatorze ans ba dix huit ans. Mm-hmm. xale yooyu nag fekk dëgër nañ. Mm-hmm. dëgër nañ te ñu ngi yeew si mm-hmm. adolescence la wax. léegi xale yooyu noonu xam nga ne dañ leen war a jàngal. te fàttali que ne ni si diine islam nee nañ à partir de sept ans la xale bi ñu commencé di ko yar si diine di ko jàngal yu bëri. léegi nag kii à partir de quatorze ans xam nañ ne kooku noonu mën na lire alxuraan sori na si alxuraan. donc kooku noonu si ko mën a xamal àdduna. mooy tax ñuy incité ñoom. Mhm. léegi nag bu ñu duggee si ñi nga xam ne ñooy takk fulaar rouge yi. Mhm. responsabilité mu ngiy dugg. Mhm. nee nañ xale bi tubaab moo koy wax sax. à partir de dix huit ans. ñu ne man téye responsable. yu bari tamit si nga ko mën a defee. ñeneen sax dañu mën nga génn sa kër mais fii amul génn kër dina islam amul génn kër. waaw ndaxte moom ba ba fa nekkee ba yaa xam. bu dee jigéen day sëy waaye bu dee góor ma mu ngi si kër gi. si waaw way juróom rek lay nekk mm-hmm. moo tax ñoom ñooñu noonu mm-hmm. dañ leen yar si cadre responsabilité parce que mm-hmm. ñoom ñooñu nar remplacer si place bi nga xam ne ñun ñu yor nañu ko mooy xale yooyu ñoom nga xam ne si à partir de dix huit ans ñoo xam ne ñuy téye mouvement bi ëllëg ñu préparer leen si xam naa damay yem foofu rek naataangoo bi nga xam ne mooy Moustapha mhm. mu am lu mu si yokk ak tamit sa tànk jaar mhm. waaw jërëjëf sëñ Saliou si yooyu la leeral dégg nañ bu baax li nga xamante ne moom la wax mooy seen objectif mhm. mais man euh, balaa ma jox soxna Mariam mu dugal question am dafa am benn laaj xam naa di ma ko may dafa am benn laaj bu am solo mu leen bëgg a laaj fasal mooy maanaam ñoom kañ lañ créé seen euh, seen mouvement bi ñëw parce que man dama ko dégg mu ne mouvement bi yàgg nañ ko créé maanaam seen historique laa bëgg ñu wax ma ñoom kañ lañ créé seen mouvement parce que man yàgg naa Sénégal mais mosuma xam ne scout musulman am na parce que bu doon gis scout yi rek ñu may romb si tali bi mais mosuma xam ne scout musulman am na loolu laa bëggoon na sëñ Moustapha yow nga ngeen ma si seen seen historique laa bëggoon xam quoi. Euh, euh, mhm. euh, kàddu bi tuuti. est-ce que dégg musulman du Sénégal. Mhm. mu de l'association islamique du Sénégal. Mhm. mu naan FAISE. Mhm. mu ngi juddu en 1983. 83. en 1983 la juddu. Mhm. mu am récépissé-am euh, ñu di décret numéro 76 40 du 18 premier euh, du 18 janvier. 1976. kon am ngeen récépissé. am nañ récépissé. donc ça veut association bu nekk rek. da nga war a légal. envers l' état. waaw da nga war légal envers l' état donc association feesi une association des catholiques musulmans du Sénégal foofu la commencer mm-hmm. si benn fédération des associations islamiques du Sénégal commencer. la mm-hmm. Mm-hmm. mission yi comme li damay correct, yokk rek. c'est que comme mission yi là. Ben, dafa ne da œuvrer dañuy œuvrer pour étendre et consolider le rayonnement de l'islam. cest à dire que l'islam doit doole biir Sénégal. à travers jaarale ko si ay ay ay ndawam. nekk ay jullit beneen bi si topp créer les conditions d'évolution propices mm-hmm. pour que nous am une meilleure diffusion du message islamique mm-hmm. au Sénégal mm-hmm. jaarale ko si lan toujours si ndaw ñi beneen bi former des citoyens conscients des problèmes de leur pays soucieux de les résoudre te loolu noonu kii tax tey jii nii ñu changer

maanaam boo gëmule yow mënoo doon ak scout mhm. parce que moom mouvement de jeunesse bi mu koy créé dafa ne mhm. c'est un mouvement de jeunesse formé sur le volontariat mhm. basé sur les principes les buts les méthodes ah les principes les styles de la vie conformément bu nga xam ne moom moom la régir teg ko te loolu yëpp boo bu ñu ko sukkandikoo xool ko jàngat ka yëpp dafa ànd ak lu ñu naan si règlement islamique moo tax moom mu yëkkati baat boobu di wax ni. Mm-hmm. qui n'est pas un croyant ne peut pas être un bon mm-hmm. scout. Mm-hmm. donc si loolu noonu laay daa doon daa doon jéem yokk rek si lii bi ah, mais mouvement face bi ma lay wax noonu. était dirigé jadis comme ki ñu naan El bi bi Diaw. ki ñu naan Tidiane Niang. ki ñu naan Ababacar Dior. ki ñu naan Aïssatou Michel Diallo. ñooñu ñëpp bokkoon na si ñi nga xam ne. ñoo yoroon ngànk mouvement face. ah. ba ñu agsi tey suñu association ski eh, eh, association scout et guide musulman du mhm. Sénégal. Mhm. waaw mais dama la dégg sànq sëñ Moustapha nga wax benn wax bu am solo mooy Robert Stephen Smith boo leen ko wër nga ne moo créé. scoutisme si boppam. Mhm. mais moom ban année la créé scoutisme. moom mi ngi créé scoutisme en 1957. en 1957 jërëjëf sëñ Moustapha ñuy jërëjëf dégg ngeen leeral yooyu sëñ Moustapha ñu def lu dul bàyyi soxna Mariam euh, mu dugal laaj bi nga xamante ne am na ko xam naa ne bëri na laaj yu mu leen war a laaj Mm-hmm. parce que ni ma déggee sëñ Saliou nu mu abordé dégg sëñ Moustapha nu mu abordé boo mm-hmm. xooli scoutisme nekk na li nga xamante ne mbir mu mhm. yàlla mhm. parce que ku yor ay xale ay ndaw depuis à l'âge de sept nekk na li nga xamante ne mhm. ñooñu ay tout tànk la responsabilité bu mag la responsabilité bu mag la loolu nag laa bëggoon ñu ñëwaat ci parce que nekk na li nga xamante ne loolu soxna jaara laa ciy ñëw parce que ku xam ni yar jigéen la ñuy wax waaw te à de sept nekk nañ ay xale yu ndaw ñu war a nekk li nga xam dañuy bàyyi seen kër yi nan loolu di ñëwee diggante ñoom ak seen waajur yi ba nga mun a yor ndaw ñooñu ba nga mën mhm. leen a former mhm. ba ëllëg ñu war a mën a doxee ci mbir mu diine lislaam mais mhm. tamit ci wàllu scoutisme mu mën a jàppale askan wi ñu laaj bu am solo soxna Diarra voilà jërëjëf ci question bi euh, àdduna lépp loo gis rek méthode la te mm-hmm. euh, dëgg la yor ay xale yombul. Mm-hmm. mais est dafa yor benn méthode boo xam ne. Mm-hmm. affaire da koy faciliter tâche bi. parce que ku am sept ans. nga dénk ko nit daa fekk ne am na loo yaakaar ci nit moo tax. Euh, dinañ naxaree tee nag. mais comme ni chef Zal waxee rek. ay xale lañ bi ñu fay ñëw. mais foo la ñuy foo moo gën a nekk seen mais mhm. dinañ leen jéem jàngal lii ba tam mhm. parce que boo xoolee sept ans boobu noonu mhm. euh, faratay njàpp xale dinañ ko xam faratay julli dinañ ko xam ba ci liir liir alxuraan si sept ans yooyu noonu lañ leen koy jàngale parce que balaa ñoo am quatorze ans dina fekk ne lu bëri dinañ ko xam seen diine mu yor leen nag du yomb mais ñi leen di formé fekk ne ñoo am na benn formation bu ñu jot am ba pare moo taxit formé leen dina yomb ci côté boobu macha allah soxna Diarra dégg nañu yooyu yooyu leeral yi nga xamante ne indi ñu ko mu wax ñu si wàllum euh, éducation bi nga xamante ne moom la ko laaj duñ def dara lu dul nag duñ sans sans pour autant tarder dañuy dem si Fatou Sall mu dugal ñaareelu laajam soxna Fatou Sall bismillah. waaw euh, ñun suñu ñaareelu laaj ñu ngi bëgg centré ci différence bi nga am na ci wàllu scout musulman ak scout catholique. Mhm. waaw alhamdulilah. différence bi am ci entre scout musulman et scout chrétien yaakaar naa ne terminaison bi wane na boppam mhm. musulman ak chrétien mhm. wala ñii tamit ne éclaireur mhm. foofu tamit li nga xam ne dinaa si leeral mooy ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal baraka xam toll nañ jamono joo xamante ne boo daan wax scoutisme musulman dañ lay joxeñ éclaireur yi ñooñu lañ lay joxeñ mais scoutisme musulman en tant que tel daaw ko woon dégg récemment yàggul motul ñetti fan maa ngi ànd ak sam benn sama benn médecin. Mhm. mu naan maan yaakaaruma woon ne scoutisme musulman existé wul. Mhm. ma ne kat daay existé na de. Mhm. man mii di wax yow rek déggoo sama wàllu at. sama wàllu at samay at su ma ko xaajee ñaar. benn genn wàll gis scoutisme laa ko passé. scoutisme musulman. ba may nekk xale ba tey jii fa ginnaaw éducation bi nga xam ne am naa ki si samay waajur. muy éducation boo xamante ne mënuma leen fay. samay waajur. Mhm. waaye nag li ko yokk si mouvement de jeunesse bi laa ko jëlee. Mhm. te sentir naa si différence boo xamante ne. Mhm. mënuma ko nettali. fu ma demee ba ñenn ñi di ma cëralee si yenn yi scoutisme musulman moo tax parce que tey jii buñ ne la formation du caractère. jamono yi boo xoolee si àdduna ni muy doxee bari na xale yu góor wala xale yu jigéen yoo xamante ne loolu dafa manqué si ñoom. maanaam tey jii xam nga dañuy wax ne jigéen amatul kersa jigéen sañ na taxaw wax lu mu bëggul lu ma li nga xamante ne daaw ko woon bëgg a wax. Mhm. mais tey jii mën na ko wax. Mhm. mais gis nga ñi ñi ma nekkal nii nga xam ne xam naa leen depuis temps temps xale. Mhm. tey jii loolu noonu facilité boobu boo ko amee si ñoom sax am na yàlla dimbal na ne am na formation bu nekk si ñoom. caractère bu nekk si ñoom mënoo taxaw di leen wax yenn wax yu ñàkk fayda yi. loolu noonu scoutisme moo ñu ko jàngal ak leneen loo xamante ne. bu fekkante ne débat bi permettre na dinañ si gën a xuus. Mm-hmm. xuusal rek <laughs> yow xuusal rek waaw loolu moom. Mm-hmm. dafa dafa yéeme parce que saa saa ñu yàlla dafa dogal dañuy toog suñu biir. ñun mm-hmm. amuñu beneen xarit. suñuy xarit mooy ñan ñi ñuy àndal depuis temps booy si mouvement de jeunesse. man samay xarit yëpp si diine laa xaritox ñoom de yàlla rek ka tax ma xaritox ñoom te ñii nii yàlla rek ka tax mooy tax ñuy ànd yàlla seen na ko léegi nag suñu ànd boobu noonu nga xam ne scoutisme musulman sori na si lu bari lu bari lu bari ba nga xam ne dama naan xale yi. Mhm. ñun de doonatuñu ay ay ay ay àndandoo nii rek nous sommes des frères et mhm. waaw booy wut xarit ñëwul scoutisme musulman di nga fa gis ay xarit. Mhm. parce que saa saa di nga dégg yenn wax si noppee ñu naan sama xarit moo ma def nangam ne kooku du xarit. sa xarit dëgg li naan xarit ami. amitié. am na kaay dañuy juwaale amitié ak camaraderie. camaraderie man dama ko jàppale mooy àndandoo koy àndal nii la rek intérêt la gis moo tax muy ànd ak rek mhm. waaye amitié pure mhm. ah man de fii laa ko xamee mhm. parce que xam naa ne kii nii ma toogal si wet gi nii ñoo nekk ku ñu xool foo ñu xaw gisee ñooy ànd la ñu boole scoutisme musulman moo ñu boole bu ñëwee suñ kër da naan fii la dëkk su ma demee seen kër da naan foofu la dëkk mm-hmm. waaye loolu yëpp scoutisme musulman la moo def loolu noonu suñ biir mm-hmm. ba nga xam ne buñ boo jàkkaarloo ñun di nga xam ne ñii nii te dëgg mooy dox si ñoom mm-hmm. te loolu noonu yëpp tricherie amu fa éducation boobu nga xam ne si wàllu diine lañ ko natt teg ka fa ñu jàngal ñu ko wan ñu si tamit ay preuve ba mu doy ñëw ñu téye denc waaw mosuñu si am déception dañu koy wax fii nag mosuñu si am déception. Mhm. ba tey jii la gën a raw bu ñu mhm. jàppoon fukk yokk na. Mhm. te chaque anne suñu jàppoo gën a sari waaw jërëjëf Serigne Saliou si yow li ñuy wax lu duuf si nag li xajul si tiin bi quoi léegi man balaa may joxaat sama chroniqueuse yi ñuy dugalaat seen question xam seen yaram tàng na man dama am laaj bu am solo solo moo bëgg a laaj parce que dama dégg sëñ Moustapha mu wax benn wax bu am solo sànq muy wax na ñoom dañu am ay principe ak ay but man principe yi ak but yooyu noonu laa bëgg nga ñamal ñu si tuuti lan moy seen but ak lan c'est principe. waaw c'est noonu balaa ma see nga baal ma kii ma see yokk si si mhm. différence scout escoute musulman. Ah, ak chrétien mhm. Mhm. xam nga scoutisme bi muy ñëw Sénégal. bi Sénégal fii daa amul woon musulman. du Sénégal rek temps ñoo Sénégal voilà ñoo ko à travers les écoles l'église et tout ça. Mhm. léegi bu ñu demee ba si biir amoon na ay musulmans comme mhm. Ousmane Thiané Sarr. ñooñu ñoom ñu ngi woon si biir. Mhm. français ñoom indi fi beneen beneen am na français ñoo dem indi fi beneen wàll mooy éclaireur et éclaireuse. <laughs> am na. ñooñu moom c'est laïc. mais comme à travers face bi ma la wax nii. ñu dem ba gis si ay doomu julli nekk si. Euh, est-ce que du Sénégal est-ce que du Sénégal ñooñu ñoon dafa am lu leen régir. Mhm. mooy par exemple abbé ou bien le curé. Mhm. et à la tête de ce mouvement là moom mooy joxe ordre. Mhm. mooy joxe ordre foofu noonu. jullit yi ñu ngi ci biir foofu noonu. donc il fallait que ñu génne leen foofu parce que mën na leen influencer waxuma ko pour dénigrer wala tout ça. mais dafay dafay dafa am lu muy xaw a nuróol. ñu tëddee leen foofu ñu créer pourquoi pas créer fédération des associations islamiques du Sénégal. ñu dem ba àgg tey jii nii ñu naan les scouts et guides musulmans

musulmans et chrétiens lan mooy son objectif toutes les deux. Mhm. tous les deux mooy li Cheikh Sall wax sànq. Mhm. mooy le créateur il a dit. Mhm. que le scoutisme est un mouvement de jeunesse. ce qui sert à former les jeunes à développer son caractère. du ko jox formation bi nga xam ne tey sa kër. sa dina la bu sa del jàngi del julli del wor del yoy non mm-hmm. mais bis bo ñëwee ci le scoutisme. Mm-hmm. cadre général la en dehors comme ni nga ko waxee. Mm-hmm. cadre général. na la man na fa laa jàngee tok fa nga jàngee toog yow mi waaw. parce que ah day dem camp. ah ci bois yi qu'est-ce que tu fais yow ya koy togal sa bopp. waaw yenn toj sa xol par exemple. am si yoo xam ne du la safati. dugg si bus comme tey jamono yi taf taf ni ñi commencé génnee jàmm. Mhm. comme li xew Sénégal nii léegi ngay wax ni xii na xaana rek mhm. ñu ne jam na ko kon yéen daal wàllum civisme ngeen di voilà mhm. côté civisme aussi tamit dañ ciy ñëw maanaam éduquer les enfants comme le principe comme damay ñëw si principe bi ñu ne l'escout c'est son pays il est un bon citoyen loolu bokk na si suñuy principe de l'escout si bii bi euh, baram Powell li mu créé si mouvement bi mu principe yi loolu bokk na si la nga wax c'est son pays il est un bon citoyen donc récemment rek week-end ñaari week-end ñu jógee nii rek ñu def benn acte civisme participer si benn événement. nous mhm. ñu naan euh, réhabilitation des des écoles publiques mhm. avant le rentrée des classes. Mhm. ñu defaraat école yi. xam nga table banc peinture école bi. récemment école El Hadj Mbaye Diop. job lañ loolu lañ koy def dañ leen di fay wala. non comme li may wax rek le scoutisme. c' est le BA mooy bonne action quotidienne. bii bi dafa ne. ku takk fulaar ne scout nga. nga xëy suba ba ngoon defoo benn BA. mooy bonne action yow jàppal na yow doo te loolu noonu tey jii sëñ Sall xam naa moom a gën a xëy na xoot si affaire u lislaam mhm. lislaam mhm. diggale nañ loolu seen nga nekk si ndaw ndaw jullit mhm. ngay saa yoo xëyee da war a def lu baax nga nekk si mooy bonne action quotidienne mooy uti yow rek li ñuy wax uti yow ba boo ko indee si cadre di maanaam nga uti yiw tiyaaba léegi nag ñun suñuy activité foofu lañ ko kale maanaam nga def loo xamante ne ëllëg nga xalé yi ñu ngi waaja ubbi manam lundi bi lañu ubbi dañ aw niveau dafa ka am ñaari école lañu visé won elage mbey job ak elage momadou diadj moy bi lañu wax école 1 bi ñu wax ko école 2 ñaari école yoyep defaraat nañ ko ñu peinturat nga xamne xalé bu ñëw dañu am ben hmm. contentement hmm. mbekté bobu nga xamne xalé bi dina ko am ci école bi hmm. gis na bi muy tej baye ko won ni lool nonu rek ça fait plaisir au cœur ñun lool la parce que

moo tax béyaa boobu noonu si wàllu diine mhm. yiw rek nga fay am mhm. waaw mais macha allah ba tey sama question man euh, jotaguma tontu bi ma soxla maanaam wàllum seen seen laa bëgg xam la lan seen but waaw but benn bi si mu ne de Dieu mhm. parce que xëy na peut-être euh, dimension xam yàlla dafa xaw a euh, macha allah waaw xam yàlla à travers bii bi dafa ne à travers la nature ben il était un garçon mm-hmm. mais il n'était pas nul première lay le fondateur le fondateur. Mm-hmm. mais bu si àll da mm-hmm. il s'inspirait il s'inspirait un de Dieu. à travers la nature. de Dieu du formation du caractère. comme li nga chef Salou Diaw lu mu ko waxee sànq. formation di karate nit ku nekk da nga war a tàggat sa bopp. mais booy tàggat sa bopp dafa am si loo koy teg. bu dee yow jullit nga. bu dee yow jullit nga. l'islam mu ngi fi. am na lu ñu lay former ba nga doon ab julit. am na. bu dee chrétien bi la même chose. bu dee cadre général l'escoutisme par exemple. ñun formation di karate mooy lan dañ lay am na looy mer sa kër par exemple tey jii man. sama bopp laa jox exemple. Mhm. man j'étais tellement nerveux dama daan toj toj rek laa daan def suñu kër. Mhm. xam nga mais bi ma duggee si mouvement scoutisme depuis 1997 ba léegi. Mhm. depuis boobu ba léegi. ah dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal. yenn yi du ma si gaaw a dugg. yenn yi du ma si du ma si wax. su ma duggee si biir su ma gisee ñii di coow sax du ma si wax damay noppi mais ku am formation boobu noonu. kooku noonu mooy loolu rek la soxla suñu réew bi instant yi nii.

xamuñu leen du ne nit ñi xamuñu leen ndax am na ñu mm-hmm. leen xam mais mm-hmm. damay jàpp ne ñi leen mm-hmm. xam minorité la lu tax wala yéen a ngi organiser ay programme yu nga xamante ni euh, fësalu leen ko kon damaa jàpp ni yéen da ngeen jël affaire bi ngeen jël. yemale ko ak Dakar wala. Mm-hmm, voilà xam daal ndax. Mm-hmm. kii bi mbir mi rëy na ba yeneen réseau yi jot nañ si. voilà mbir mi Dakar kese kese la nekk. macha allah solo. waaw loolu balaa ma si balaa ma si soo damay préciser. Euh, que ne mm-hmm. ñëwul ñu fi euh, pour l' national ou bien l' équipe régionale. ñu ngi ici pour lu groupe local Thiombanduru. ñu nekk siège bi nekk Wakam. ñoo lañ fi ñëwal. donc au niveau local. peut être suñuy activité ñu ngi koy. jàllalee ni ñu mhm. koy jot ak yooyu noonu peut-être mhm. c'est restreint dafa xaw tuuti peut-être loolu si défaut la wala si mhm. erreur la laa koy tuddee ah mais nag suñu ak nit ñi xam nañ ko mais tey jii dañoo toll si jamono joo xamante ne man damay daan euh, souvent dañuy def évaluation ma ne il faut que ñu wut benn genre un carnet pédagogique pour adopter avec le nouvel contexte tey jeunesse bi lu ñu nekkee nii am solo waaw loolu c'est à à à à faire loolu noonu xëy na tey jeunesse bi tey nii am na leneen lu ñu beneen xalaat bu ñuy xalaat beneen vision bu ñuy gis. te ñun mm. xam peut-être xëy na suñu njàngin moo archaïque. Mm. wala je ne sais pas suñu vision programme moom la dem moo dem ba benn instant nit ñi miin nañ ko léegi dootuñu si sawar il faut que ñu changer programme. waaw loolu yëpp si siy am. Mm. mais nag terewul. nit ñi si boppam xam nañ mm-hmm. nit ñi xam nañ ne le scoutisme et guide musulman du Sénégal ça existe. waaw ça existe sëñ Moustapha parce que wax dafa mel ne waxtu moo ñu xaj ñeenti. ñeenti simili moo ñu dese suñu caméraman moom ma koy moom ma koy signalé léegi. Mm-hmm. mais ki daf la laaj na ba xam ndax yéen seen euh, seen mouvement bi Dakar rek la yam wala am na si yeneen région yi. am na si yeneen régions yi. Mm-hmm. am nañ Ziguinchor. Mm-hmm. Kolda. Thiès. ah Kaolack Kaolack. ah Dakar am nañ fi ñaari groupe local. benn bu nekk vocal fii ak benn bu élargi nañu daal ñun suñ suñ suñ suñ au niveau national. ginnaaw boobu waxtu bi moo ñu faj sëñ Moustapha mënuma jàll te laaj ma leen question bi yéen loolu yëpp am ngeen ko fii Sénégal si si ay groupe local te nit ñi xamuñu leen muy benn beneen bi mooy euh, damay gis mouvement jeunesse yi souvent ñoom dañuy am ay représentants au niveau fële euh, bureau national de la jeunesse te man yéen mosuma leen dégg foofu mosuma leen gis si activités yi nga xamante ne gouvernement bi ñu koy organiser jëm si wàllum ndaw ñi. Euh, loolu loolu moo waral loolu. parce que mhm. auparavant dafa amone ñu daan nous représenter dafa siège ñu représente alors que amuñu woon suñu mandat. Ah, di di jël seen seen. je parle may c'est au niveau régional je parle en tant que commissaire régional. Mhm. parce que loolu foofu lañ koy réglé. Mhm. léegi am nañ fa représentant même moi je suis damay damay souvent au niveau conseil national de la jeunesse. Il y une réunion yenn rencontre ñu invité ma ma dem. ma assister foofu sous l'égide du commissaire régional. chef Moussa Sy. maa ngi koy nuyu au passage. souvent ma dem assister mhm. loolu noonu c' est c' est c' est on a rectifié mhm. que macha allah ñeenti waxtu moo jox mu gaaw rek sunu Mariam waaw mhm. euh, balaa ñuy clôturer. Musulman am na xaalis walla parce yor ay ndaw. dafa laaj laaj laaj nga laaj bu am solo dafa laaj moyen dafa laaj moyen. Ah, ah, ah, waaw alhamdulilah xaalis bi nga amoon de mu neex. <laughs> ñun de bi ma si nekkee ba xale ba tey jii ma toll. Mhm. activité bu ñu mës a def. Mhm. scoutisme musulman. Mhm. ñu ñëw génne suñu participation. def ko suñuy activité xam nga ñun chaque année boo xoolee dinañ organiser ñetti camp. mois d' avril les grandes vacances mois de décembre. gis nga si ñetti camp yooyu noonu dañuy demander participation élément yi. Mhm. comme bu les grandes vacances. Mhm. bu leen laajee 10 000 francs xamal ne laaj nañ responsable lu ëpp dix 000 francs. Mhm. bu fekkente ne dañ leen francs laaj nañ mag ñu francs. bu ko mais risque de vacances éducation ah, système D D

góor boobu na fecc chaque jour bu dajoo si nekk. ah kon man da a may soxna xam naa. mais waxtu bi moo ñu xoj sëñ Saliou dañ duñ def lu dul sama Mariama sama Fatou Sall waxtu bi daf ñu foofu noonu sëñ Saliou xanaa si loolu nga defale sa mot de la fin ndax ne xam nga rek xam naa beneen yoon ñu gën a yaatal ñu gën a kii incha allah parce que waxtu bi moo ñu xoj dëgg la dëgg la jërëjëf nga jaaree foofu waxale sa mot de la fin rek waaw alhamdulilah maa ngi sant ñëpp ñi si plateau bi di sant bu baax si invitation bi di gërëm tamit suñu responsable au niveau national comme région. waaw mhm. ñoo xamante ne ñoo ñu doole bi ñuy xale ba tey ji mhm. di wax ne scoutisme musulman ça existe bel et bien mhm. ça existe bel et bien man mii rek def naa si 15 ans Moustapha ni dégg ngeen

waa di remercier itam suñu chef yi. te di wax nit ñi daal nañ ñëw parce que ñun ñoo fi. waaw macha allah jërëjëf sama jaar ñoo ko déggandoo suñu mbokk sama ñaari chroniqueurs yi yéen ñaar ndax moom xam naa ne li ngeen li ngeen bind yëpp si ay question oh, xam naa ne xaju fi ndax waxtu bi moo ñu xaj duñ dem dul bàyyi leen ngeen kan, wax seen mot de la fin. Kan. waaw waxtu bi moo ñu xaj fooy. la ñuy tàggatoo nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen waa Wakam yi déplacé wu ñëw ba fii. Mm-hmm. am ma la bàyyi sama question yi ma war a yóbbuwaat. ah du si man de ñu ngi caméraman sama suñu caméraman moo nañu waxtu bi xoj nañu loolu moo nañu si dara. waaw ñu ngi jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne ànd nañu ñun di ñu seetaan. Mm-hmm. di jaajëfal mbokk yi fi ñëw mm-hmm. sant ñëpp daal. waa jërëjëf ñoo ko déggandoo mbokk yi ñuy seetaan kon mu ngoobu tey dañ fi dalal su Musulman comme li ñuy wax ne li daf si li li duuf si nag bi xajul si cin li mm. lu ñu def lu dul jox leen rendez-vous beneen yoon suñu beneen numéro